la bokk kon man maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm waa saam ñëpp di gërëm relais yi ñëpp sama baat bi nag dafa xaw a dee ndax damaa sonn ci gàmm gi relais yeeg ASC yeeg bàjjenu gox bi yëpp ñoo ngi liggéey liggéey bu am solo fii ci poste de santé bi di gërëm ama di gërëm ki nga xamante ni mooy monsieur Yadd moom itam wax dëgg yàlla liggéeyam rafet na fii muy guddi muy bëccëg waxtu wuñ ko woowee dafay jóg ci liggéey bi kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko joxal mention spéciale di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp. wax dëgg yàlla man mënuma ma leen a fay heure bu ma wootee ci lu jëm si Augustin Tine rek amul benn doomu aadama bu bëgg a taxaw fenn ñëpp dañuy bëgg a ñëw fekk si man daal mënatu ma leen a fay. ñi bo rañ am nañu bëgg ñëw sax dañ leen ni nañ for ndax té affaire bi mi ngi guddi ñii ñëwaguñ ba légui kon Augustin tin bi ñu nekkee ci maire bi di xëccu man man dé man xawma xëccu duma xëccu ndax man kima ma xamna moy kan té mom xamna may kan ambulance du benn kessé ñaar la amna fuñ ko placer dama bayyi ndax suma sédé rek man na am affaire am dina am lu ci yaq ndax nima ma ko jegee man dama ko naan joxel joxel dama xamni sama wal bu waré ñëw dina ñëw tay bi mu waré ñëw ñëw na te bi mu ñëwee tey ñun ñoo ko bokk ñun zone nord ba commune Fandène tout ku bëgg am ambulance ku ko soxla fii boo waxee wax dëgg yàlla ji ñi mu nekk seen loxo xam naa leen te jàmbaar dëgg lañu Ablaye maa ngi lay sant amaa maa ngi leen di sant yéen ñi nga xam ne tey yéen la yàlla teg fii ba tey jii tey teraanga bi ñëw Sam Ndiaye kon sant naa leen gërëm naa leen Augustin Tine nag moom yàlla rek moo ñu koy fayal ndax moom commune am rek a ko ñor commune am moo ko ñor mi ngi jàppale Macky Sall ci département waaw mi ngi si commune am mi ngi ci département lii rek moo ko ñor commune am bi moo ko ñor département moo ko ñor li nekk ci Augustin Tine lépp man mënu ma koo wax li nekk ci Augustin ma koo wax lépp tey ndax bi ñuy nekk ñaar ak ñett booba ba léegi maa ngi moom la kon tey lu ma ci wax rek yàllaa ngi ma tim mu nekk lu dëgg bañ na ko ba moom xam na ni man ci ci dëgg rek laay dox te lu ma wax samay dëkk ci dëgg laay dox ak ñoom ñoom ci dëgg laay ànd ak ñoom dëgg bi maa ngi leen di gërëm sama kilifa yi maa ngi leen di gërëm man su ma taxawee fi tey di ànd ak Augustin ba tey Macky Sall jël réew mi ba ñu nekk fi tey ba lii teraanga yëpp di fi ñëw ginnaaw yàlla man sama kilifa yi ci dëkk bi ñoom la Macky Sall ñëw na ci dëkk fi ñëwee tàkkusaan la fi ñëw ñu ñaanal ko te defe naa dëkk bi ku fi ñëw suñ la ñaaneelee waxtu julli nga bëgg rek da nga jot te defe naa li ñu li ñu bëgg li mu bëggoon jot na kon Augustin na ko ñëpp ñaanal yàlla moom Macky Sall mandat bi ñu eggale ko ci ni ñu ko bëggee ñu ngi ci liggéey bi bu kenn yàkkamti kenn ku ne di nga jot lii sa kon teraanga baa ngi nii day dem feneen ak feneen bu dul lii di leneen kon nañ ànd ak dal jàppale Macky Sall mandaa bu mu eggale ko liggéey ko ci liggéey bu wér ci dëgg la ñu nekk nag ci dëgg la ñu ne ñoom dañuy politique waaye doomu aadama yi lañ bëgg a ndax nit ñi sonnoon nañu defe naa teraanga yi di ñëw nii ci village yi ñun mosuñoo bokk ci yi mosuñoo bokk ci dara ndox mi duguna rana baangi ni ngi nii na ko naa bi dina ñow do ku la jox ambulance na la goudron fu ambulance bi jaar kon na leen lenn leen goudron dina ñëw do gis ma mako sakal gor pir la duma ko tek ben nak duma ko tek ben metti metti ndax xamna naa jikkoom xam ni gor pir la ku gore ngi ni ku gore ngi ni na leen bir ni ambulance bi mo leen jox am na ñu bari ñu ko soxla waye Sam la ko tek ndax xamna ni gimu andal mom du xëccoo du giiroo te ma man luma am tay na dëkk bi soxaliko dëkk yi ñu wër ñëpp soxaliko li na momu ñuko ñun kasse ñun Soonor ñoo ko bokk ku ci soxla kenn tane wu ci sa morom ñun ñëpp ñoo ko bokk teraanga ji ne ñun ñëpp la ko boole yal na ko yàlla seddal nag yal na ko yàlla seddal martial jërëjëf maam góor maa ngi leen di sant ndax heure bu ma yuuxoo rek ngeen fallu si ma sama yuux te da ngeen ma ci wallu si ak nu ma ko bëggee kon sant naa leen bu Augustin taxawul mel na ni taxaw na ndax yeneen a sama ginnaaw kontaan naa ci yéen jërëgéen di dalal suñu gan yii tey li ko commencé ci monsieur le maire bi nga xam ne dafa yónnee ndaw ñi mu yónni teew fii ñooy gërëm ñëpp di sant ñëpp ñoo ngi sant ñëpp di wax ci turu jigéen ñi Sam kon tey dañoo kontaan a waa Sam ak dëkk yi nga xamante ni ñoo wër Sam yëpp wër poste de santé bi ndax poste bi du Sam rek kon ñoo ngi sant dëkk yi fi teew yëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp monsieur le ministre di wax dëgg yàlla xalaatam lii mu def ni rafet na te jigéen ñi la ko defal ndax ginnaaw yàlla jigéen ji daanaka ñoo moom poste de sant bi ndax bu yaay feebaree jigéen lañu doom feebaree jigéen la ñuy woo su borom kër feebaree jigéen la ñuy woo kon yaakaar naa ne jigéen ñi tey ñoo moom lii kon kontaan nañ ci trop ba yàlla di sant ñi nga xamante ni ñoom la délégation bi fi teew di leen dalal jàmm di sant médecin chef bu district ndax ginnaaw yàlla tey moo yir poste de sant bi tànkam lu wun ci lenn nag lépp lu ñu yëng rek médecin chef mi ngi suñu ginnaaw kon ñoo ngi leen di gërëm di leen sant waaw di sant ñi nga xamante ni tam ñoom nga teg fii ci poste de santé bi mooy li ko commencé ci ICP bi ba nga xamante ni ba ci euh, sage-femme bi fi ne ñoom madame Diouf ak ñi nga xamante ni personnel bi fi nekk daal sant nañ ñëpp gërëm ñëpp di sant euh, euh, soxna Anta Dieng ak ñi nga xamanteni ñom la andal ñepp ñoo ngi leen di sante di leen gëreum ndax li dal dafa doon lu reuy lo xamni ni nañ ci ñun ñepp ñoo ngi ñaan yalla dal yalla nako fi yalla sédal guuy kon ñu sante ñepp gëreum ñepp di jital ci nuyoo bi encore waasam ñi nga xamanteni tay ñoo bis bu mag bi euh, di wax rek ni tay ambulance bi tay dafa ñew ci heureum ndax des fois dañuy am problème évacuation bu ñu bo amé ay cas urgence goudi mënoo fëgg ay taxi baa ngay fëgg ay auto nalen leen ngeen yóbbul ma malade hôpital régional ba hôpital sergent de Dieu kon tey bu fekkante ni ministre bi maire de fandene andi nañu ambulance bu mel dañ koy sante diko ko di wax rek ni yalla mo wax ne ku dul sant doomu aadama doo doo ku dul do doomu aadama doo sant yàlla depuis bi mu nekkee maire gis na ni amna ay réalisation yu am solo yu fi am ndox mi andil nañu ko courant bi andil nañu ko tout récemment amna conseil municipal bi jox nañu ben délibération bu mag bo xamanteni ni mag mu à plus de cent hectares

pour yéen conseil municipal bi ngeen xam ko ASC yi nekk zone nord de Fandène nee na amuñu ay espace yu ni ay terrain yu ni di defe sport te loolu aussi day dund aw yar aw wér gi yaram kon bu ngeen demee ci maire ngeen ni ko nanu dimbali ci élection présidentielle yi waxoon nañ ko ba doon si génn ay xalaat mais après élection présidentielle loolu dañ koo jël teg ko fële ñu bëgg na bu ngeen demee ngeen génn wax ci seen tiroir yi nattal gars yi ay terrain ci fépp pour ñu mën a am ay terrain de football man mii di wax ak yow sunu tool bee nekk ginnaaw kër Assane tey kër Assane am na ay militaires yu fa génne ci école ba am na ay ingénieur am na ay professeur am na lépp ak lépp ña fa te sunu toolu maam lañ dëgg dagg ko ay ay ay école nit ñi di sa di sa jàng ba am xam-xam di liggéey ñu leen ciy fay pour pourquoi pas mun ñëw ay tool yoo xamante nii dañ koy daggal jeunes pour ñu si jéem football loolu na ngeen ko ñu yóbbal beneen bi mooy élèves yi nekk ci zone nord dafa am benn doon bu mu wa tey ce matin bi ma jaaree laalan neen bu ngeen demee ngeen nu dimbali tabaxal nu ab seem ndax dox bi diggante fii ak laaraan sonn nañ si si loolu loolu rek lan amoon di leen wax di leen gërëm. ginnaaw ni ngeen ko nee nii leen ànd ak yéen leen nëbb si dara jërëjëf merci. di sant magi dëkk bi di sant ko Augustin Tine ñoo ngi koy sant yàlla yàlla gën koo dolli jàmm Auguste lépp lu mu diggee woon rek yàlla jotale nañu ko. bu nu jugee ci Anta ñu ngi sant commune euh, bu nu jugee ci Auguste ñoo ngi sant commune Théral euh, sur nord kii euh, Ndoye caw Ndoye Thiaw tamit yal na yàlla yàggal ko fi. Anta Diène toogaay bi mu toog ci dëkk bi moom it diggante bi mu toogee léegi ak ñi ci ginnaawam Anta macha allah vraiment jig na jig na tund wi yëpp ndax lii yëpp ci ci toogaayam la fi ñëw kon eh, du tayeel du sonn bis bu ne mu ngi ci luy suqali dëkk bi. kon nag yàlla na yàlla gën koo dolli wér bu nu paree ñu ngi sant Ablaye Yadd Ablaye képp ku feebar soo dee maga euh, di euh, euh, Masial maa ngi sant Ablaye Yadd képp ku feebar dina daraase fekk la sa kër boo mënul faj la toppatoo delluwaat ci hôpital kon xam na loolu il faut ñaanal ko yàlla yàggal ko ci dëkk bi suñu ci jógee ñoo ngi sant ndamani ñoo ngi sant Anta Dieng mi Anta Dieng santam amul yamu way ndax Anta jenn dafa ñemee sonu lol ci dëkk bi ma nga xamal ni képp kuy top ci gram xam nga ni asta jenn kenn mënu ko fay day doxa dox buma démé lélé kërëm diko këram dana am Anta jenn ñëwagul te lu lu suqa lu suqali dëkk bi rek ab tundu yi moko taxa jox li ñu andi nak fi yàlla na nekk suñu njiglaay yeen ñu kondit yàlla na fay leen ko gis ceetin yàlla na bu ko ci dug ci darje rasulullah nuyo rek alaykum wa rahmatullah Sam ak mbokku commune di euh, di fi conseil municipal bi ah di monsieur l'adjoint au maire bi également euh, le chef de cabinet du ministre secteur municipal monsieur Martial John, euh, di également également personnel de santé bi nga le chef de poste bi Cheikh Yad madame Diouf sage-femme bi euh, personnel du poste de santé bi yépp di nuyu jigen ñi parce que nenañu ah, Sénégal bu jëm il faut que rek wax nañ ko donc poste de santé bi xam nañ am ngeen wàll bu am solo bu ngeen ciy dox di gërëm également monsieur le ministre monsieur le maire parce que lii tàmbaliwul tey te du yem tey loolu daf ma leer ah poste de santé bi gis nañu fu mu ko jëlee ak fi mu ko indi yemul rek ci poste de santé bi mais day jàppale euh, district sanitaire u Thiès yëpp di jàppale Sénégal yëpp donc ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax di rafetlu taxawaayam ci commune am taxawaayam ci Thiès donc taxawayam weesu na commune Sénégal yépp la am taxawaay ñu koy rafetlu di ko gërëm bu baaxa baaxa baax ambulance bi dafa am solo trop dafay ñew motli rek plateau technique lenen leneen lu am solo ngi fi moy personnel qualifié équipement bi li ñew matali dafa am solo trop ci poste de santé donc di leen ñaax ngeen di jëfandikoo poste de santé bi képp ku am tawat ak nu mu mun a toll boo dëkkee ci gox bi njëkkeel ñëw fii muy mag muy ndaw muy góor muy jigéen loolu mooy suqali post bi te lépp lu ngeen soxla am na fi bu amul dinañ leen teg foo xamante ni ci yoon bu ngeen demee ñu toppatoo leen bu baax a baax a baax di gërëm bu baax a baax a baax personnel bi gis naa seen liggéey ah at weer bu jot dañuy yot seen rapport activité gis nañu taxawaay bu am solo biñ ci biñ fi nekkee donc di leen dénkaat encore personnel bi ngeen jàppale leen bu baax a baax ngir ñu mën di toppatoo seeni problème de santé bu ngeen ànd ak ñoom liggéey di ngeen suqali bu baax a baax wërgu yaramu askan wi yeewoo fii ci goxu Sam ak commune zone nord commune fanden be jërë ngeen jëf asalaamualeykum wa rahmatullah ngeen jàpp bu baax ci poste bi ak euh, ambulance damay jox kàddu bi euh, infirmier chef de poste bi moo gën a miin waa dëkk bi mu wax ak ñoom ci ay par rapport à utilisation ambulance avec poste de santé je voudrais magnifier en tout cas cet acte noble de monsieur le maire monsieur le ministre Augustin Thune, pour avoir doté le poste de santé de de d'une ambulance neuve bien équipée et cette euh, cette ambulance va compléter le plateau technique du poste de santé. Il y a un plateau technique euh, acceptable au niveau du poste qui permet de prendre en charge les problèmes prioritaires de santé de la population et il vient aujourd'hui encore magnifier, euh, en tout cas appuyer davantage le poste de santé en dotant d'une ambulance toute neuve. Donc nous lui remercions vivement de cet acte généreux et l'invitons encore davantage à appuyer le poste de santé, la commune de Fanden et tout le district sanitaire de Thiers. Je voudrais également remercier au nom de la population tout le personnel du poste de santé toute la population de Samdiaï pour euh, les performances de ce poste de santé et les invite véritablement à utiliser le poste pour tous les services de santé dont ils auront besoin. Je vous remercie, merci, merci encore. Je remercie la délégation de la commune Fanden. Je remercie docteur Fay, médecin chef district sanitaire de Thiès di suis content de voir teew gi vraiment sagal na franchement bon lii dafa nekk loo xamante ni yàgg nañ koy xaar ñi ngi remercier aussi le ministre monsieur le maire Augustin Tine franchement demande bépp demande bu ñu mës a def man dama koy seede rek te yàlla tax satisfaire na ko franchement du lii rek. vraiment ñu ngi koy remercier ci loolu. leneen li des nag wax ci bon fi ma koy ñaan mooy comme que ambulance ñëw na ñu ngi ñaan chauffeur. comme bi nekk Ngom Sane plus entretien ndax xam naa ni ñu ngi koy àggal te loolu dina ko àggal ragal naa mu ngi seen xel bu soobee yàlla. gën a jigéen nag jarul muy gudd lii ak monsieur le maire wàccoon naa ak ñun li des mooy ñun. bu la joxee lu jafe da koy sàmm. ba ëllëg bu ñu fi ñëwee ñoom seen xol dina sedd comme ni ñu sàmmee maternité bi. heure bu fi partenaire ñëw daal na ñun de bu ñu amaatoon tey jii lu ñuy financé lañ ko jox ndax entretien bi. Mm-hmm. mais nit bu defee ay jéego jox la dara samoo ko bu baax bu ñëwaatee. même bu la ko waxul xolam dina naqari. Mm-hmm. moo tax man damay sopp entretien dama ciy focaliser bu baax poste bi sax xam nañ ma mm-hmm. di beral nuyoo tamit sama sage-femme d'état bi ma nekkal fii. muy madame Diouf Amanat Ndiaye. muy madame Diouf Amanat Ndiaye parce que lii lépp bu amee. xëy na collaboration bu bu baax la ndax jàmm fu mu amul dara du fa am kon donc man maa ngi koy remercier di ñaan lii yàlla na jëm kanam ba dem ba kawe suñu yor je vous remercie. waaw salaamaaleykum mbooloo mi am ñoo ngi jël kàddu fii ci ndigalu Augustin bi ma gërëmee chef de village ak imam ndax avant tout dañuy na jaar ci imam ak chef de village nuyu ko nemmeeku ko bi ñu defee loolu docteur Faye.

moo jagle waa Sam Ndiaye ci poosam mu jënd ci xaalisam looloo tax binduñu binduñu ci ambulance commune Fandène ndax bu njëkk ba ambulance commune Fandène lañ ci bind mais bii ambulance post de santé de Sam Ndiaye kon loolu wone na ni ah am na fu mu teg santé ndax yaakaar naa waa këram ay docteur kese fa nekk looloo tax mu ne woon eh, la santé avant tout yaa da mënuñ laa bañ a gërëm ndax yaakaar naa euh, bu ICP yëpp meloon ne ah, eh, yàdd du ñu sonn ndax bu amee lu mu wax rek waaw ko aji aji ñëw wax ma ko wala wax ko commercial ñu jéem cee jóg ba tey tey te am na lu ma aji dénkoon ci problème mu médicament yi yaakaar naa loolu du yàgg ñu réglé ko loolu daal yaakaar naa mooy li Augustin bëgg ci Fandène Fandène nag yaakaar naa yaatu na mais lu ñëw Sam Ndiaye wala zone nord la koy jëkkee kon waa zone yaakaar naa a ah, gàcci ngaalama Augustin Augustin nit yaakaar naa ku ko xam xam ku ci li muy wax ndax tey xëj na dañoo bett moom moo waroon a ñëwal boppam après nag martial mu naan ma ah Augustin kat nee na ñun ñoo fi sës te yaakaar naa jaa sës mooy tax nga falu loolu taxoon ñu ñëw teewal ko sànnul ko kàddu pour rafetal bis bi ambulance ba ngi yad la a ah, Augustin tek nako sa loxo bis ni ki tay ndax man bima ñew sa induma auto te problème santé mo tax sama auto ñewul Martial ak mam Goda ma wo man ko ah sama auto ngi di dem Thiès ndax dafa yobbu malade yakarna bu ambulance amé fi bu ñu amé problème ñun wa Ndiobène dama lay wo yad man ko amna ñu ben cas fi nga ñu ambulance bi loolu da la amone digël ak ñepp L'accueil a été vraiment à la hauteur, c'est ce qu'on pensait. À ah, Augustin, c'est le maire de la commune de Fandine. C'est lui qui devait être là. Mais par contre-temps, il nous a envoyé, moi, Martial, Mamgour et le chef du village de Fanden Tchachi, Abel Tin. Ah, après ces mots, je remercie également Docteur Fay. Il a tout dit. Ce qu'il a dit, nous ne pouvons plus ajouter un mot. Ce qu'il a dit, c'est vraiment la vérité. La santé avant tout, ce que Augustin avait dit. Et nous sommes persuadé que dans ces pas, la commune de Fandel ira beaucoup, beaucoup, ira loin euh, aujourd'hui. Merci beaucoup.